aussi donc on à dire que. mbir mi mu ngi am à nañ ko. Mm. Mm. mais à partir deux heures du matin jàpp trois foofu la mbir mi amee. Mm. donc mbir mi aussi du lu ñuy rafet ñun en tant que responsable. da nga nañ ko mooy lan. waaw ça veut que ñu ngi am ay retour sa à dire que géej dañu am ay gardien foofu. ok xam nga nit ñi ah. dëkkuñu fa. ok donc gardien yi bi ñu déggee yuuxu yi xam nañ ñu am na lu am donc responsable yi la ñuy jëkk woo. ok donc bi ñu déggee yuuxu yi. fi ñu fi ñu lawee soriwul c'est c'est ci yëre bi la daal en quelque sorte c'est au-delà de de dix quinze mètres. c'est pas cent mètres ou deux cent mètres. Euh, bi. ci côte bi lañ lawee. cest à que gaal gi aussi suuxul diigul tojul saa il faut le dire aussi c'est c'est du vrai li ma leen wax loolu loolu mooy li ne. tojul tojul diigul. kon dafa tey dafa rëng. Ah. rëng boo gisee rëng mu ngi mel ni ngay jaar fii mooy mooy canal bi par exemple. Ah, léegi mu mu mu def. fausse route par exemple jaar si kaw table yi. Ah. donc du am ah, assez d'eau dafa rëng daal baatu olof la bon c'est waaw dafa càng daal waaw dafa rëng këpp mool yi comme dafa kawe mhm. donc bu rëngee dafay day day weng noonu mu weng euh, këpp mool yi ñu nekkoon si biir par exemple mhm. bu mu leen këppee xam nga guddi la lëndëm mhm. ku xamul géej da ngay da ngay paniquer c'est-à-dire a pas eu foofu damay gis ne ña yoroon gaal gi aussi ils étaient pas assez responsables am na mu boo xam ne da ngay calmer ñi nga yëpp waaw da ngeen di calmer delloo si leen. Hmm. panique bi dañoo paniqué. waaw dañu paniqué beneen bi tamit dañ xamul wakam. ok teeru bi lañ xamul. mais am na ay passage mu ngi mel ni canal bi. Hmm. gauche la ak droite. mais si digg bi ñun ñii fi miin mën nañ fay jaar mais à des yoo xam ne ñun xam nañ ko. Hmm. mais ñoom xamuñu fa. comme dañ leen ërtal rek comme ni ñu waxee information boobu aussi c'est pas très avéré. mais gis nañ ne am na lu si am. marine bi moo leen dax ñuy bëgg échappatoire. daw dugg foofu. donc loolu aussi mu nekk loo xam ne lii bi ñu ñëwee comme xamuñu fa bi gaal gi rek ngi gaal gi tuuru ñenn ñi mën a fay daw génn génn ñeneen ñi mënul fay xam naa ni jàppante wala yu demee noonu. daal daal di noyyi mmh. waaw loolu moo indi mbir mi. Mmh. donc gaal gi aussi comme ni ma leen waxee ñenn ñaa ngi naa gaal gi bon chavirement tubaab mooy wax chaviré. Mmh. chaviré mooy lu weng dama xamul. mais chaviré mooy lu këpp mais diigul diigul ga dafa tuur mool ya donc bi mu amee aussi ñu alerté ñu. ñu ne première vague bi comme ñun en tant que responsable ñenn ñi ñoo jëkk dem tefes heure boobu deux heures trois heures du matin. fekk na leen fa. man je suis venu un peu plus tard. mais bi ma ñëwee si fekk naa fa loo xam ne lii en tant que responsable dama dem jubal directement ci autorité yi pour wax ñoom comme quoi que ne assistance su suñu organisation yi muy plongeur yi fi ne. Mhm. ñu fexe dugal leen ci géej si mhm. c'est moi avec le coordonnateur comme je suis son adjoint Ablaye Seck bu man ma fekk naa ko fa moom aussi mu jóge Yoff on était sur le terrain. bi ñu ñëwee on a parlé avec les autorités euh, commandant daw gendarmerie bi d' abord. mu ne comme demee na noonu parce que y a les sapeurs qui ont dit que bon marge de sécurité il faut pas que civil di fi dugg ak yu demee noonu xam nga noonu ñuy waxee mais comme ni docteur waxee il faut associer les populations am na loo xam ne ñoo ko man mhm. am na fii ci bureau yi par exemple am na ruxa-ruxaat yoo xam ne ñii fi yàgg rek ñoo ko xam mhm. donc moment boobu bi ma insisté commandant de bureau na kon nañ dem ci le responsable des sapeurs mhm. ñu ñëw wax ak moom muy door a accordé ñu wax suñu xale yi ñoom ñëpp ñu soli seen i masque dugg ci pour jàppale leen. deuxième chose bi mooy gaal gi foofu mu nekkoon di këlëng këlëng nii bon j'ai parlé avec aussi ñu ne ma bon jox nañu ma autorisation ma jubbanti gaal gi dugal ko ci géej en attendant maire bi aussi le le maire de Wakam de passage ñu koy saluer. Mm. parce que utiliser na euh, tracteur pour ñu tirer gaal gi parce que gaal gi mën woon dem port. Ah. waa environnement amuñu espace. ok waa port yi ils veulent pas le recevoir là parce que ñun loolu lañ doon wax nañ ko takk yóbbu léegi comme environnement amuñu espace. il fallait ñu bàyyi fi gaal gi. kon gaal gi mu ngi fi. mu ngi fi waaw gaal gi boo demee léegi def nañ si ndox parce que loolu aussi c'est notre expérience comme quoi que ne dañ doon xalaat ñoom bu ñu fi seetee gaal gi est-ce que ñoo koy garanti ñu nous on garantit rien du tout cest à ko que on suñuy pexe ba peut-être que noonu ngeen xalaatee ña moom gaal gi dinañ ñëw jël ko yooyu duñ ko fi jële mm-hmm. léegi gaal gi tëmbalaat nañ ko. bi mm-hmm. tracteur bi ñëwee maire bi comme ni ma leen ñu ngi koy remercier si loolu. donc mu indi tracteur tracteur bi mu ñëw indi xaw a faible parce que gaal gi aussi dañuy wax ne dafa ndaw mais gaal gu yam la quoi. rëyul trop. mais tuutiwul trop mais xamuñu ba ñaata nit ñoo ci nekkoon. nit yi duñ duñ ko mën a xam parce que xamuloo fu ñu embarqué. waaw yi buñ suivre seen demee ba responsable bi ñu ko dina wax yeboon na temps wala des hmm. wax ne xam nañ naam nombre bi si nekkoon loolu moom dafay wax loo xam ne. li hmm. peut-être des doy na la. Hmm. mu nekk loo xam ne léegi biñ jëlee suñu responsabilité comme gaal gi poklaan bi mënul yëgal gaal gi dañuy dugal gaal gi ci géej j'ai parlé avec le commandant pour lui dire que ne léegi gaal gi ñun am nañuy pexe gaal gi dañ koy dugal géej remplir que d'eau à moitié mm-hmm. xam nga gaal yooyu pour as leen c'est pas moins de deux heures de temps mën nga si nekk di génn ndox mi te du jeex gaal yi ñoo tuutiwul quoi tuutiwul dañuy waaw dafa xóot say profondeur bi day def trois mètres boo duggee si biir nekk si biir bu amul raas raas peut-être que yéen doo le ko xam raché au niveau wu deuxième planche bi. Mm. am na ay banta yuy teg. Mm. foofu la nit di toog ba duñ laal ndox bi. Mm. loolu mooy ay race. race yooyu bu ñu ko dindee boo taxawee yow doo feeñ. doo feeñ waaw que c'est de trois mètres. donc ñu rempli gaal gi de ndox boo demee léegi tefes Ouakam. boo ñëwee boo xoolee juste ginnaaw fii vague yi di dammee noonu. di nga fi gis benn gaal bu mel ni ku diig noonu ñu ñoo ko def exprès diigal ko foofu. pour que kenn bañ ko yóbbu donc comme ñu ngi wax waxi sécurité le temps. enquête bi di suivre boobu ñoom ñu ñëw jël gaal bi yóbbu ko ko mhm. donc yeneen bagages yi aussi autorité bi jël na ko muy machine baax essence yi desoon nax affaire yi demee noonu. pour enquête bon yóbbu nañ ko yóbbu nañ ko environnement. Mhm. gaal gaa ngi ci ndox mi daal gaal waaw. gaal gi moom ci ndox mi parce que ñoom dañuy ragal ñi ko moom. ñëw jël ñëw jaar fa ci suuf ñëw jël si ko. waaw ñëw jëlaat ko waaw.